yi maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar Fada. Mm-hmm. waaw maa ngi leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di am mbégte ak di partagé plateau bu riche xam nga fii ci Africa 7. Mm-hmm. waaw nga may dalal yow Tulla ak sama père di leen bëggee di nuyu all around the world kuy bëggee Fada rek. maa ngi lay nuyu di la ziar fekk la fi nga nekk ne la jàbba mais maa ngi beral loxo waa Medina moom bu quartier. xam nga maa ngi leen nuyu ku ci nekk sa ak sa sant. Mm-hmm. di nuyu sama yaay bu baax a baax di nuyu sama famille di bëgg ñëpp waaw. jigéen ñu baax ñooñu ba tey mën nañ fee am euh, faada mais xale yi daal vraiment te defe naa ne nag yéen tamit euh, joué joué ngoon ngeen ci loolu rôle bu am solo waaw Tulaay dama lay ci loolu parce que boo xoolee adduna loo gis am na exception waaw mhm. tey boo xoolee suñuy jamono maam mhm. ak jamono yi dafa wute mhm. père dafa wutewul lool Tulaay tey bu njëkk dafa am yoo xamante ne amuloon léegi mu nekk phénomène am parce que société bi moo xaw a jaxasoo. dëgg la société bi dafa xaw a jaxasoo trop. comprendre nga moo tax ku ci àndul ak sa xel rek day compliqué. mu nga sul que ñiy baax ñi ngi baax. ba tey mais ñiy yor beneen melokaan peut-être loolu ñoom la. Mhm. mais man personnellement je contre ci nit bi nga xamante ne bon jàppalewul jigéen. Mhm. parce que jigéen mooy lim lax jigéen trésor la père. dëgg la. man Fanta Fadera sama yaay. Mhm. dama ko bëgg de telle sorte que man kon jigéen bu ma xool rek ngay xale ngay mag ngay ndaw. damay jàpp ne sama yaay laa gis. parce que idéo idéologie boobu laa yor. parce que mooy lim la jigéen xelam matul. war nga ko mën a comprendre. mën nañ sikk nag parfois. mais bu nga ba Sénégal fii c'est malheureux. parfois balaa ñuy mën a xam valeur nit rek. daa génn àdduna dafa génn àdduna. te loolu dafa nekk loo xam te dañ ci war a bàyyi xel. dëgg la maa ngi lancé message boobu. à mm-hmm. tout le peuple sénégalais. Mm-hmm. autorité yeeg ñëpp ba ci monsieur le président Macky Sall. Mm-hmm. muy bàyyi xel ci loolu. dëgg fii bëri na ay légende mhm. xam nga dama toog tout récemment parce que man damay suivre mhm. ci média laa di seetaan Père Ousseyn Ndiaye mhm. yàlla na ko yàlla may taw bu baax a baax ma fàttaliku ay jamono yoo xamante ne peut-être il était macha allah voilà merci yàlla ñëw bon mu mu a jagadi ñu koy ñaanal yàlla taw ak bépp mbokkum jullit genre nit ñooñu sénégalais waruñu leen di fàtte dëgg la ay Omar bëri na ay ay légende te dañ leen war a delloo njukkal de le vivant di leen bàyyi di xel quoi. Mm. waaw c' est très très intéressant message boobu dama ko doon souligner nii rek. Mm-hmm. de passage quoi macha boobu man mii sax seetaan naa ko mais vraiment yaram dafa daw daal ndax nag ku xam Ouzin Ndiaye xam ne wax dëgg yàlla yàgg nañoo bégal suñuy papa. mu nga souligner lu intéressant sànq muy wàllu tuuma. Mm-hmm. ndax nattu du wees yàlla ñu yàlla sàmm aar ñu defal ñu saxaadatul daara ni defal ko adduna yëpp parce que adduna dafa doy waar mm-hmm. tey ñu ngi bàyyi xel ñi nga xamante ne dañ nekk ci prison bi. Mhm. de di masaw seen ay famille mhm. parce que am na ñu fa nekk yàlla nattu leen am na ñoo te defuñu. Mhm. ndax mooy kaay ngay wax nii. xam nga. suba incha allah waaw waaw Medina TV waaw waaw ngi leen di di leen bëggee jaa ngeen jëf.